xam naa dañuy ñëw ci li nga xam ne moom moo ñu indi fii moo ñu dajale fii ginnaaw buñ nangoo dogalub yàlla ndax ñun ñëpp ay jullit lañ yàlla lañ gëm waaye nag dafa am sabab kon sabab boobu ak cause bi moom lañu war a xam lan moo ko indi ndax buñ ne dogalu yàlla rek te defuñ li ñu war a def yaakaar naa euh, mën naa gën a doy waar kon euh, cause bi euh, su ma nee cause bi nag mooy enquête dañ soxla boo xam ne dafay wane lan mooy indi lakk yi ndax ne chaque mois ci Sénégal da nga dégg marché bu lakk te mu benn enquête boo xam ne mas na pare ne lakk yi kat lii moom moo ko waral bu ñu paree ci loolu ñu si def ne responsabilité responsabilité ñan lañ mooy état am na ci part de responsabilité bu yaatoo yaatu muy autorité yi nga xam ne ñoom ñoo représenté état parce que marché dañu gis ne dafa manque insécurité l'insalubrité ak euh, euh, maanaam sante ak tilim mu ñëw doole ci incendie yi loolu nag première responsabilité première autorité bi maa mooy monsieur mooy maire yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, ci communes yi ndax maire mooy première autorité bi nga xam ne bu marché amee problème rek moom moo si interlocuteur direct parce que recettes yi jógee ci marché yi ci maire yi lay dem commerçant nag mënul wax moroomu commerçant am ne ko fii doo fi nekk kon responsabilité kan la war a doon mooy autorité yi ñoom ñoo war a ñëw ñu sécuriser marché yi waaye ànd ci ak commerçant yi ndax ko gis euh, fi ñu demoon léegi la fa am avant ñu fay àgg xam ne yow tey tey bala ñu fay jóge lu mel noonu mën naa amaat wala lu gën a pire loolu kon loolu dafa aaje ñu tirer ci ay conséquences fexe ba marché bi am ay yoon waaye am ay accès ba sapeur pompier saa bu ñëwee euh, war a def intervention mën a am fu mu jaar loolu nag euh, yaakaar responsable kenn jiitu wuleen ci ñun ñii ndax mbedd pour jaaruwaay la waaye mbedd kenn waru koo baare ndax lakk gi tey li tax mu agsi fii mën naa ni manque yoon bu sapeur pompier jaar moo waral mu agsi fii benn bi mooy euh, buñ paree ñu xool solution yi lan la solution yi nag dama jàpp dañu war a euh, taxawal comité de pilotage boo xam ne marché bi commerçant yi dañ ciy bokk waaye autorité itam dañ ciy bokk ñu fexe ba marché yi am sécurité waaye fexe tamit ba moderniser marché yi ba méngoo ak euh, ni jamono di ni jamono di doxee ndax wax dëgg yàlla suñu marché itam euh, ñi nga wax modernisation waaye ba léegi euh, gisaguma dara bu loolu jàllee tamit may woo état surtout le président de la république ginnaaw bu ñu recensé mbooleem ñi nga xam ne seen alal ñàkk nañ ko moo xam commerce moo xam euh, borom magasin la ba ci ambulant bi tablier bi ñoom ñëpp ñu xam kenn ku nekk loo yàqule foofu noonu dañuy woo état ñooñu ne mu indemniser leen kenn ku nekk mën a delluwaat ci sa liggéey ndax ñooñu lu néew néew place boo dem da nga fekk ñaari emploi yu fay liggéeyee. li mu wax dëgg la ci marché bi man jaaxale na wax naa ko ko bi ñuy ñëw nee naa ko man de état nan lay intervenir ci marché bi jaaxle na. ndax mboolem dégâts bi ñuy wax lu metti la ak li muy dal nit ñi ak li métti métti du marché bi du marché bi moo lakk fi mu ne àggagul ci marché bi marché Ocass li ñu ne mooy marché muy 1625 cantines yi nga xam ne moo tax ñu naan marché Ocass lakkul dara àggu lakk gi àggu fa ay kër rek ñoo lakk ak cantines yi nekk ci mbedd mi donc loolu loolu bu ñuy deexoon nañuy wax solution dafa am ko ne ma jox ma plan wu bi ma ne ko marché bi lii lakk mënu ma laa jox palaa lii ay kër la marché bi mi ngi nii quatre-vingt sur sur sur trois cent di mille six cent vingt-cinq yi loolu maanaam diggante fii la dégâts bi yam ak boo koy natt ak foofu lu mu néew na mën na soixante cinquante mètres soixante mètres laala mais mais dëkk bi maanaam da marché bi dafa yokk te yi du yem fii marché bi marché bi ma nga jëm 28 ma nga jëm gaar ma nga jëm guy mbind guy mbind li jëm ak went wi ak mbal loolu moom ku yë ku xam dara da ko xam donc nii mu mel nga xam ne kër yi nekkoon ci marché bi yëpp te jege ko dañ leen a transformé ay centre de centre commerce def leen ay centre seeni borom tabax leen nit ñi am xa marché bi xam na amatuñu fi ay place parce que lu mat 5000 nangam place nga fi te marché bi 1600 place la marché bi 1600 quelque 1625 la actuellement li fi nekk ci ay place ci ay boutique mën na 5000 nangam nga xam ne li excitation bi kat mën na ñeenti yoon surface bâti marché bi donc loolu euh, loolu nag en tant que euh, opérateur économique d'abord dina nan la ñuy def ñenn rek ñoo ko mën a régler ñii ñii ñu def assise marché ambulant yi délégué de marché bi les ak UNACOIS ñëpp ñu ak chambre de commerce ñu daje xool lii ban solution lañ war a def pour ñi nga xam ne ñi ngi fi am jàmm li nga xam ne xaj na fi ñu def ko fi li nga xam ne xaju fi ñu dindi ko teg ko feneen def le defar ko ba mu ba mu bañ nekk à bonne condition man faa nekk liggéey maanaam bu fekkee dañuy ubbi yeneen marché ñu ko bu fekkee dañuy def ye créer yeneen marché ñu créer ko parce que ñii Touba toll benn dëkk boo xam ne ne mën naa kilomètre carré maanaam nekk ci ñëpp bu ñu xëyee bëgg ñëw ci benn ma ci benn marché nga xam ne nit dana paas ñaari yoon dugg oto wàcc duggaat oto wàcc door a ñëw ci marché bi yaakaar naa ne war nañoo mën a délocaliser décentraliser activité yi ba kenn ku ci nekk fa nga nekk buñ soxla ku soxla jën ne fee laay dem jëndi ko ku soxla habillement ne fee laay dem ku soxla tissu ne fee laay dem ba 1994 laa waxoon ne nañu génnee jën ak yàpp ak lujum ci biir marché bi yóbbu ko marché gaar bu ndaw jigéen ji nga xam ne dafa xëy ngàbbam si woon yor dépense am di dugg wax dëgg yàlla mën naa bañ a tàmbalee buuxante 28 ba ba fii mu dugg maal bi mën na ñàkk mën na dem gaar bu ndaw dugg fa jënam ak yàppam akam duggam ñibbi ki bëgg leneen ñëw ñëw lu lu ku bëgg marchandise bu marché bi am mu ñëw ci marché bi keneen jëm feneen mais lépp ñu centraliser ko fii xajatuñu fii xajatuñu fii nañu toog waxtaan de décentraliser yëf yi xool ban solution lañ war a def marché ambulant ak ACHIS ak délégué de marché yi ñu xool fenn fu ci nekk nan la ñuy def parce que ba ba jàmm ba nga mën toog fii ci jàmm ci sécurité te mën a liggéey tranq am tranquillement parce que tiré am nañ ci expérience ah. gis nga daral gii daral gii ñu doxale guy mbind moo gënoon a compliqué fuuf pourtant bi ñu ko doxalee ñoom ñu ngi ci jàmm bi ñu fa defee juróom-benn weer ñoo def délégation ñëw ba ci man ne ma ñun dee dañoo nekk ñu ngi doon dee li ñuy am mënuñu ko li ñuy am léegi mënuñ koo na am te daawuñ dund ci sécurité te léegi maanaam gisa puso duutu réer ci ñun ñu ngi dund ci jàmm te li ñuy am ci xaalis ci bénéfice mënuñ ko woon am dañoo bëgg ànd ak yow dem ba ci xalif général seen Sidi Mokhtar si Cheikh Matale ñu sant ma ànd ñoom dem ba ci sëñ bi ñu sant pourtant bi leen fi jógee lu ci àddina wax na gi benn génn góor ne ma boo fekkee bàq boo jégee bàq ma xam ne yaa gën a gudd fan ci àdduna loolu wax na ma ko tëkku ma ma ma ree jàll te tey ji ñoom ñu ngi ci jàmm xoolal da ko imaginer fora yi ni mel kon dama bëgg ñu toog waxtaan waxante dëgg xool lan mooy solution ñu ànd ko def parce que ab ab maire du du du ab maire dañ ne mooy ndeyi nit ndey nag nampal nampal doomam la man ak jox ko mu lekk ak mu naan yërmande la doxe sëriñ bi dafa bëgg ko yërëm nit ñi ci yërmande la lañuy dox waaye nag bu fekkee ne problème am na ñun ñi ko seq nañ bokk toog waxtaan xool ba ne lii mooy solution bi ñu soumettre ko xalif sëriñ bi am ci ndigal dem ci état bi mu exécuté loolu kenn ku ci nekk nekk ci jàmm ndax bu dul loolu dañuy accuser maire bi maire bi maire bi waaw lii lakk centre commercial yi nag ak lii li muy bari bari bari commune bi de moo koy bale bët bu yàlla sàkk 30 personne laa fi teg teg ci biir marché bi 12 personnes muy 42 ñu di ko bale bët bu yàlla sàkk di di maanaam di fay di fay ndox mi di def def éclairage public mais amul un franc nag boo xam ne day jóge fii di dem ci mairie bi temps teewul waru gar la ci ma di ko def parce que population bi fi daje te maire yi mooy moom la moo responsabilité war di toppatoo nit ñi centre de centre commercial yi centre commercial yi amul lool donc nag bu ñu toogee ñunu ñu toogee ñunu neen di waxtaan nañu nañu seet solution waaye nañu waxante dëgg centre commercial nit moo moom këram moo këram tabax ko te luye ci biir waaw loolu buy luyee ci biir bo maanaam bu weer dee mu fayub xaalisam kooku kenn mënu ci dara donc commerçant bi ci biir na nga xam ne dem na bu we bu weer dee amaane sax moom bu weer dee dana fay patantam kooku mi ngi dugal dara mais sant commerçant bi mënul dugal dugalul benn dërëm ci commune